ci àggee ca korite ga nag benn moom dong boo gisee la muy maandu maandu du saña wori ndax dañuy bañ su ñu nee kenn képp bu ko gisee ci korite ga it mën naa wori ab naafiq bu bëgg a wori daal di wax ne man gis naa ko daal di wori moo tax kon ci njëlbeen gi kenn ku maandu bu gisee weer wi mbooloo mi moom duñu war a woor ca loola waaye moom ci boppam war naa woor bu dee ci korite ga nag moom kenn ku maandu kooku su gisee weer wa itam du saña wori la cee tey daal mooy su mënta ñàkk wori mu nëbb ko ci biir kenn bañ a xam ne wori na mu des digganteem ak boromam rekk su mbooloo ne itam gis nañ weer wi tàmbalee juróom jëm kaw dañ jàpp ne ñoom daal mënuñoo kompaloo mukk ne gis nañ ko te gisuñu ko saa yu mbooloo ne gis nañ weer wi rek ni ki am ku ko wax ci béréb sàngam kenn wax ko ci béréb sàngam kenn wax ko ci béréb sàngam ba ñu mat juróom mbaa ñu ëpp ko dañ jàpp ne du ñu mën a kompaloo mbaa dara day jàpp ne kon loolu moom dëgg la jàpp ne weer wi feeñ ne daal di tàmbalee woor waaye nag takk-takk bi rek mooy duñ mën a jàpp ne dañoo kompaloo ne weer wi feeñ na waaye nag sunu jamono ji nga xam ne moom mbir yi dafa jaxasoo lool lool li gën a wóor rek mooy weer wi feeñ feeñ goo xam ne kenn nattabliwu ko mbaa bu dee bokki taalibe yi ñu déglu waa Tuuba lu waa Tuuba sukkandikoo rek ñu sukkandikoo loola fam sikk na nga jàpp bi subooti ca sax ga walaw ba adal falaqi ak doon ci gannaaw fenk ku fajar la mu ne nag boo xasee xam ne weer wi feeñ na da nga daal di war a ormaal bëccëgub ramadaan bi bañ a lekk bañ a naan bañ a def dara lu koor di aaye li mu bëgg a wax mooy guddi lañu yéenee daañu ko leeral léegi boo xëyoon ak suba xamu woon dara ci weer wi ñu ne la weer wi feeñ na mbaa nga dem sax ba digg bëccëg ba añ ba noppi sax ñu door ne weer wi feeñ na ñoo ci yemoo su wéree ne weer wi feeñ na rek tey jii ci ramadaan la bokk rek da ngay daal di bàyyi lekk ak naan bu fekkee lekkoo woon naanoo woon boo ko def bu fekkee defal nga ko dalal di bàyyi du tee na nga fay bis boobu wa xukmu shawaalin àtteb korite ala hada nasaqi nekk na ci gileeg toftale li nga wax léegi ci njëlbeenu weer wi moom ngay waxaat ca mujjug weer wa maanaam bu ñu amee ñaar fukk juróom-ñeent ci weeru koor wi te weer wi feeñ ñu daal di wori su fekkee ni weer wi feeñ it ñu daal di koy mottali fanweer kon waman nawaa ku yéene assawma koor ga bilastiqaanin ci lu dul wóolu feeñu ko weer wa wa baana te feeñ daagal yow mu boobee bis min ramadaanin di bokk ci ramadaan qadaahu kon mu war koo fay wal yamdi te na wéy xalaa imsaakihi ci jàppam ga maanaam bañ a lekk bañ a naan mbaa def dara lu yàq koor wayal samute dana war at takfiiru kafaara ga bintihaakihi ci ak xotteem ormay koor ga kon li fekk mu lay wóor ne weer wi feeñ na rek bul yéene woor ngay bàyyi noonu rek boo ci xamee lu wóor daal di yéene boo ci xamul dara nag ba fajar fenk mbaa bët set mbaa bëccëg nga yëg ne kat weer yi feeñoon na am nañ ci lu wóor nga daal di bàyyi bañ a def dara lu koor di aaye bi nga xasee xam nag ne weer yi feeñoon na ba noppi loo defaat ci luy dog koor rek te tey ko rek boo yem ci fay képp waaye dañ lay alamaan boole ci ndax kon dangaa xotti ormay ramadaan ji de sax bu fekkee da ngaa jàpp ne yëguma ko woon ba léegi si wóoruma woon kon mën na maa bañ a woor daal di lekk mbaa nga naan waaye tooyul rek la du ñeme yàlla du xotti ormay weer yi fay rek ngay def ne ñëpp waaye boo xasee xam ne moom ku yëg ne ramadaan dugg na da nga daal di war a bàyyi lekk naan ak lépp li dog koor nga xam ko ba noppi nag téewulaa lekk mbaa nga naan mbaa nga def li dog koor nag da ngay fay ba noppi ñu alamaan la boole ci dana wax alamaan bi lu muy doon ca kanam wax siima sañef naa woor yow mu sekki bisub sikk sàkk ba lit tatawoi ngir ak coobarewu wan nadri ak ngir nisër in saada fa ndem fiiroo na ak bis booba wa tataabuhi ak koor gu toftaloo laa li ixtiyaatin waaye du ngir léemtu maanaam du ngir bëgg ko wàññiwaale ci ramadaan bisi mu waxoon léegi muy bu ñu amee ci baraxlu ñaar fukki juróom-ñeent te asamaan si naqaree xool xamuñu ba xam suba ci ramadaan la am bokk ci mu ne woon kon kenn du ko sañ a woor ci kaw naa ko woor rek bu bokkee ci ramadaan ma tàyyee fay mooy nag sañes na ko woor rek kooru coobarewu maanaam woor rek ngir yàlla moom jubluwoo ci boole ko ci ramadaan soo ko wooree ngir yàlla nag mu far bokk ci wooru koor wa it du tee nga fay ne ñëpp ndax yéenewoo ko woon bokk ci ramadaan nga waroon rek noonu ngir yàlla kooru coobarewu te ramadaan farata la bu fekkee dangaa ni soroon woor ab bis mu far tombeeg bis boobu it niki dangaa ni soroon woor bisu alxames mbaa bisu altene mu far tolloog bis boobu nga woor ko it dara nekku ca boo nekkoon ci koor gooy susale mel na yow da nga doon woor weeru baraxlu wépp itam nga àgg ci bis boobu daal di jàll rek jàpp ne ci baraxlu la ndax xamuñu dara ci weer yi nga daal di koy woor ba tey dara nekku ca takk-takk bi daal mooy saa yu baraxlu amee ñaar ko juróom-ñeent te guddi ga lëndëm ba xam dara ci weer yu jafe danañu sib nga yéene woor bis boobee ndax ne bu bokkee ci ramadaan ma tàyyi cee fayante loolu daal lañ sib wa alayhi war na ko nag yàqu di mu fay yawman ab bis walaw saadafa ak doonte fiironte naag yawmal fardi bisub farata ba mooy lu ñu waxoon léegi bu yéenee woor bisub sikki sàkk boobu ndax ne bokkee ci weeru koor duma ci fayante bu ca bokkee itam du tee mu fay na ñëpp bu fekkoon sax muy woor koor goo xam ne gu war la ci moom yaar yépp lay ñàkk ndax bis moom bu xasee bokk ci weeru koor yéene ko boole ci weer wa rek mooy tax nga am ko waaye ndegam moom daa nekkoon ci geneen koor goo xam ne du ramadaan ba mu ko wooree nag far mu tombeek mu bokk ci ramadaan moom bis boobee nga xam ne kon dana fayal ramadaan fayal bis koor gee nga xam ne ca la nekkoon te àggalewu ko woon aw jëpp na nga ko waral bi shahri ci saxu weer wa wa bi tilaamin ak ci ak gént te mooy kàllafe wa saxa wére na bil xaq li ci xel wa bil islaami ak tàbbi ci lislaam daa bëgg wax ne ramadaan am na sart yoo xam ne mooy tax mu war la nga woor am sart yoo xam ne mooy tax sa koor wér ba bi ñu wax ne fayal bis boobu waaye ci dëgg-dëgg rek ci teqale mën nañ ne am na sart yoo xam ne mooy tax koor gi war la am na sart yoo xam ne mooy tax koor gaa wér am na sart yoo xam ne daa boole yaar yépp di sarti war di sarti wér sart yooyu tax koor gi war la mooy weer wi ci boppam ñu am firnde ju wóor ne tàmbalee woor war na ci niñ ko xamewoon ci gannaaw barax lu mat fanweer baa ñu gis weer wa ñaareel ba mooy jëmm yi nekk mukallaf gone moom koor waru ko tey soppiñu ko ci moom da koy tax rek néew doole wuti naag julli julli moom tey ne woon gone bu amee rek juróom-ñaari at nañ ko koy digal su amee fukk nag moom nañ ko koy digal te su bañee sax ñu dóor ko ca waaye koor moom soppiñu ko ci gone sibla itam nga di ko ko digal mel ne ko ci bëgg a forcé ndax da koy néewal doole rek ñetteel bi mooy jëmm ji mën a woor koo xam ne mu mënta woor rek koor ga wàcc na ko nit ki koo xam ne dafa màggat a màggat ba jàpp ne du mën a woorati mukk mukk daañ ko wax ca kanam koor wàcc na ko te léeg-léegi sax wóoru ko dañ koy sopp ci moom rek daañu wax lan mooy lele sart yi tax nag koor war ko ñeent la ñettangook bi ko ñeenteel mooy mu bañ a nekk ci tukki boo xam ne mat na doxu wàññi te muy tukki bu dagan buy tukki tukki boo xam ne mat na doxu wàññi te tukki bu dagan la tem tàmbali tukki ba njëkk fajar di fenk kooka woor waru ko sart yi nga xam ne nag dañoo bokk ci sarti wérga bokk ca sarti warga mooy mu ànd ak sagoom ab dof ku ànd ak sagoom koor waru ko te bu wooree itam du wér bu dee jigéen nit mu bañ a amee dereti mbërëg muy reegal mbaa dereti wasin jigéen bu gisee deret jooju koor waru ko te bu wooroo nit du tax koor ga baax sart yi nga xam ne mooy tax nag koor gaa wér rekk yam ca mooy bee mu wax mu dugg ci lislaam ab yéefar koor war na ko ndax li yàlla santaane lépp dañ ko ko sant waaye nag li fekk duggul ci lislaam bu wooree itam koor ga du wér li mu ci teg nag ne wan niyatin ak yéene saa bi xatin juy aji jiitu lil fajri ñeel fenkuk fajar fii ku léewu men ci bépp bis bokk na ci sarti koor nga yéene ci guddi ga bi ñu guddi ga nag mooy fi jant bi soye digganteem ak fajar di fenk li gën a wóor mooy yéene jooju daa bokk ci faratay koor ci boppam waaye bokkul ca sart ya ndax sart ak ponk dañoo wute mbaa nga ne sart ak farat dañoo wute sart day génn ca dëgg-dëggi mbir ma farata mbaa ponk day dugg ca dëgg-dëggi mbir ma ay jàpp ne jëmmi yéene ji moom daa bokk ci farata yi li gën a noppale sax nga def rek faratay koor ñaar képp ni ko sëñ bi andi woon ci tasawu du zixaar mu yéene ji dogu ci woor ngir yàlla ak nag bàyyi lépp loo xam ne day dog koor wakkafat doy na nag moom jenn yéene fi shahri ca weer wa ka kulli saw mi nit gépp koor waajibit tataabu yi guy aji war ak toftaloo kal qatli ni ki kafaar ak rey wa zihaari ak zihaar lat tatawaxi du caageenu kooru coobare woo daa wax ni nag ramadaan moom guddi ga ci jëkk boo yéenee woor lépp weer wi rek jenn yéene ja doy na du aajoo guddi gu ne nga di ko yeesalaat lu may nag nga dem ba am ngànt loo xam ne day tax doo mën a tegale koor ga ngànt loolu ñaar la day am ngànt loo xam ne day yàq koor ga nga xam ne ku amee ngànt loolu doo sañ a woor boo wooree itam du baax mel ne mu dem ba bu dee jigéen mu gis baax wala mu am doom am dereti wasin wala boog li ñuy wax ak ndof wala xëm mu saxoog moom ngànt yi moom bu deñee faaw mu yeesalaat yéene jëkk ja nga xam ne moom la yéene woon ca njëlbeenu koor ga doonte sax kenn ci ngànt yi da ko dal ci gannaaw bu jant ba soyee laata fajar di fenk ngànt la deñ mu fas yéene woor bëccëg ba ca topp it du tee rek mu war a yeesal yéene ja bu dee nag ngànt loo xam ne moom du yàq koor ga nga xam ne bu ko wóoraale woon it koor ga wér mel ne tawat joo xam ne teewu ko mën a woor tawat ji may na ko bañ a woor waaye mën naa woor nag ba tey wala tukki boo xam ne tax na mu sañ a bañ a woor waaye nag xam nga ne tukki moom bu ko neexee itam mu boole ca koor jamono yooyu mu tolloo ci ngant loo xam ne yoon may na ko mu bañ caa wóor li fekk ngant loolu dañ nekk bu dee tawat mbaa tukki te teewut mu fas yéene woor rek kon guddi gu ne day yeesal yéene ja ba kera ngant loolu jeex bu ngant loolu jeexee nag bu yéene waatee benn yéene rek mu doyati ba kera muy amaat beneen ngant muy ramadan muy geneen koor goo xam ne gu ñu war a sësaleel daal moom boo xasee yéene ci guddi gu jëkk rek te amul dara lu la dog jenn yéene ja doy na du aajowoo nga yeesalaat yéene ja guddi gu ne ni ki raw nit am na alamaan buñ ciy wax boo xam ne am na koor li ñuy wax ak zihaar moom itam am na alamaan buñ ciy digle boo xam ne koor am na ca zihaar nag mooy yemale soxnaam ak ku ko araam faawu faawu mel ne mu ne sama gannaawu soxna si daal mi ngi mel ne ci man sama gannaawu yaay wax ju ñaaw jooju mooy zihaar am na alamaan buñ ciy wax boo xam ne koor bokk na ca yu mel nii nga xam ne koor ga daa war a sësaloo nag moom bu yéenee ci guddi gu njëkk rek te amul dara lu ko dog jooju yéene doy na bu dee koor goo xam ne moo ko coobarewu rek nag waaye waru ko ci genn wet nekk ñett fan yi muy woor ci weer wu ne mbaa su bëggee woor juróom-benn fan ci weeru korite wi mboolem koor yu mel noonu rek nga xam ne waru ko mbaa nga xam ne tegale ga moo warut guddi gu nekk day yeesal yéene boppam waaye yéene rek ci guddi gu jëkk ga du doy wat puufuri ak laab ga minkal xaydi ci lu mel ne ki mbërëg xabalal fajri ci njëkk fenku fajar jigéen ji bañ a amee deret waaye waxoon nanu ne jigéen ji set ci dereti mbërëg ak dereti wasin sartu wir la waaye sartu war la itam nga xam ne jigéen ji bu xasee am deret jooju mujj mbërëg mujj wasin koor gi wóoru ko te it bu waree du wér du baax moom lay wax naa rekk ne jigéen ji set ci deret njëkk waxtu yi koor gi tàmbali muy fenkuk fajar na fekk mu set ci deret bu xasee set ci deret nag moom njëkk fajar di fenk mën naa daal di yéene woor bis boobee ñàkk ngaa sangu du ca dara ba tax mën naa wax saxa wér na xabla xusli ci njëkk ca ngaay la ba ànd tuhuri ci gannaaw laab ga ca ngaay bi moom ab sart la ci wérug julli ga rek waaye du sart ci wérug koor gi bu ko wóoree ne laab na rek njëkk sangu fajar mën naa daal di yéene woor bu yeexee sangu itam du ca dara sangu ga julli gaa ko moom waaye jotewut ak wëru koor gi dara wa tarki ixraajil mani yi ak bàyyi génne mani yu ak daax yi may aji woote lay firi waaye dafa jublu ak daax yi ma di muñu sawatlu balaa koor gee wér mu bañ a génne man yu ci tayam nga xam ne moo ko sawatlu doonte sax jotewul ci sawukaay ndax dina indi jëmi jote ga ci sawukaay bu sawloo ba génne man yu rek moo xam ci fóon la moo xam ci laalante ci yaram la wala sax xool wala xalaat bu yàgg yàgg sax yooyu yëpp bu ca mën yu génnee koor gi daal di yàqu wal xay ak wàccu ba tey na moytoo wàccu te tey ko su fekkee moo luuju dugal baaraam ci gémmiñam wàccum génn koor ga dal nay dokk wàccoo nag wàccu moo xam ne tawu ko ni ki daal sibru rek daal di wàccu kon bu fekkee wanaatu ci dara ci gannaaw bu ñëwee ba ci gimiñam kon koor ga dara sikku ca waaye nag bu dara ñëwee ba ci gimiñ ga yàbbiwu ko xanaa daal di koy wanaat nag kon day fay ba noppi te waxal ne sax bu fekkee moo ko tey wanaat ga moo ko tey dana war a kafaara boole ci ndax day mel ne ku lekk wal mas yi ak ñàkk tey génne mas yu su wóoree tey ko def luy génne masiw masiw daal di génn fay daal di koy war kafaara du ko war waaye fay ga moom dana ko war doonte sax xalaat ci xolam la bu yàgg-yàgg bu masiw génn du tee mu yàq koor ga mu war a fay awil jimaax yi wala booloo woor ba noppi jote ca sawukaay ba te tey ko kenn forcé wu ko ca day boole yàq koor ga mu war koo fay ba noppi nag ñu alamaan ko boole ji waaye nag jote googu ci sawukaay kat balaa yàq koor ga day fekk ka def jote ga muy góor ga doon mukallaf bañ a nekk gone bu doon gone kooram du yàqu te it ka mu joteel di ko àgg ci ñu mën a joteeg moom waaye bu fekkoon ne moom góor gi mag la waaye kam joteel daa joteeg moom rek waaye agul ci ñu mën a joteeg moom daa force rek def ko ba tey lay tax koor ga yàqu mooy mu génne man yi rek waaye bu fekkee ne jote ga taxul man yu génn koor ga du yàqu ci takk-takk daal góor ga def jote ga bu fekkee ne mag la maanaam mu kàllaf la kamu joteel ku jigéen ko it mu kàllaf fa la mag la ne moom mbaa bokk bu fekkee kàlla fi wutit moom jigéen ja jëmm ja àgg na ci ñu mën a joteeg moom kooku faaw moom góor gi joteeg moom yàq na kooram moo xam man yu génn moo xam man yu génnut te it bu fekkee kenn forcé wu ko ca dana war a fay alamaan boole ci watar ki yi akuk bàyyeem isaa la maa àggale la nga xam ne taxal la la ruy na li mee datin ba ci ak bàq aw xalqin wala ba ci baat ixliil nag mooy firi bantu sawukaay waaye gis nga wayu ni mu def rek laa laaka ixlilan moo nekk ci way wi laaka ixlila la daaneele lay tax koor ga baax jamono yi fajar fenke ba jant bi soo na moytoo àggale dara ci bëli gi dañoo jële li baax ga waaye bu fekkee loolu dafa ruy da ngay teqale bu fekkee loolu lu ruy la ni ki ndox mbaa lu ko nuru moom su xasee jàll ba ci baat bi rek koor gi dog na duñ seet ba xam jàll na ba ci bàq ga wala déet bu dee loo xam ne ruut nag ni ki ab dërëm mbaa xeer nag nga xam ne ruut te itam nekkut luy seey mbaa dara bu jëlul ca bàq ga rek niki mu seex ko mu dem ba ci boli gi mu daldi fexe ba mu génn koor ga du dog waaye lu dul moom ni ki doxal lu ko nuru bu xasee jàll ci bëli gi rek ci baat bi rek ñu jàpp ne koor gi dog na moo xam nag daa jaare ci gimiñ gi wala dafa jaare ci bakkan mbaa ci nopp mbaa ci bët manees naa wax ne bu amee lu mu bëgg a fajoo ci bëtam niki tuufaay wala lu mu def ci bakkanam mbaa ci noppam mbaa ci gémmiñam na ko def ci guddi gi ba bu dee sax lu mu diw ci boppam yépp rek na ko def ci guddi gi ndegam nar naa woor bëccëg ba ca topp su ko defee ci guddi gi nag bu àggee ci bëccëg ba mu yëg ko ci ak boleem du tax dara war ko ca koor ga dara sikku ca su fekkee ci bëccëg bi nag la tuufaayu mbaa mu fajoo dara ci bakkanam mbaa noppam mbaa lum diw ca bopp ba ndegam bëccëg bi la ko def moom su ko yëgee ci boli gi rek ci bëccëg bi koor ga dog na faaw mu fay bis boobu ñu jàppaale foofu ne bu dee ko amee asma pompi asma yi mën na koo jëfandikoo ci bëccëg bi wàññiwul dara ba tey itam nag loolu mu fajoo ci bëccëg bi muy tuufaay mbaa leneen def nga ko def ci bëccëg ba bu fekkee dara aggu ca ca bëli ga yëgu ci dara du tax nag koor ga dara sikki ca lay sikkal daal mooy ci bëccëg bi la ko def te it ci bëccëg bi la yëg ne àgg na ci put gi ba mu ngi ko yëg ci ak bëleem kooku moom koor ga dog na li waxagum mooy lépp lu ruy su xasee àgg ca booli ga rek ak fu man di jaare koor ga dog na man nga cee tegte loolu nga xam ne moo ruy bu fekkee dafa jaare ci buntu suuf bi ba jàll ci bàq ga ba tey koor ga dana dog waaye nag li jaare ci buntu sawukaayu góor gi wala ci buntu sawukaayu jigéen ji ci xeet yooyu nga xam ne ñoo ruuy lu ci àgg ci baax ga itam du tax mu yàq dara ci koor ga awe ci buntu suuf ba rek moom lu ruuy la ba àgg ci bàq ga mooy yàq koor ga leneen loo xam ne nag moom ruuyut dafa nekk lu dëgër mel ne aw xeer wala ab dërëm su ko wannoon laata muy jàll ca bàq ga mu fexe ba yàbbi ko rek du yàq dara ca koor ga bu ko awle woon ci buntu suuf ba it ba mu jàll ba ci bàq ga it du tax mu yàq dara ca koor ga kon lu ruy ak lu ruyut am nañ ak teqale foofu mu seetluwaat ko nisiyaanu za fàtte lii fil fardi ci kooruk farata yujibu dana waral alqadaa fay yii mu weesu yépp mu waxoon ne su ko teyee koor ga yàqu na faaw day fay dana teqale sax yañ ca war a fay alamaan boole ca day leeral ne yii kat bu ko defoon ci ak fàtte dong ne ki mu lekk mbaa mu naan waaye dafa juubu rek niñ koy waxee ci wolof juubu ga du tee mu war a fay koor ga ndax dañuy jàpp ne kooru farata moom su dogee rek moo xam moo ko tey moo xam téye ko fay ga moom mënta ñàkk fay ga mënta ñàkk alamaan ba nag léeg-léeg mu war ca léeg-léeg du ci war lee mu waxal nag ba muy tudd man yu ak mas yu ba mu tuddee baatub xurooju ak génn nu wax la ne la ixraaj génne la jublu dañuy teqale foofu ne su man yu mbaa mas yu génnee ci moom ci loo xam ne yàllaa ko nattoo rekk bu xelam ne toq ci mbirum jigéen walla su ne jàkk rekk xool man yu génn mbaa mas yu génn moom dara du ko ca war loolu yàllaa ko ko teg ba tey itam bu doon nelaw rek gént génn màndi yu dara lu ci war fay waru ci dara waru ca génne ga màndi yu wala génne ga màndi yu lay tax kooram yàqu ca mooy moo ko sabablu ni ki moo doon xalaat xalaat bu yàgg wala muy xool xool bu yàgg ba loola génn loolaay tax ñu ne koor ga dog na faaw war na koo fay bu ñu nee nag kooru farata moom saa yoo ko dogee rek fay ga mënta ñàkk warees naa xam nag àtteeg kooru naafila maanaam koor goo xam na nga koo coobareew rek waaye warut mel na jamono yi ku nekk di woor juróom-benni fan yi di gunge dog ca saye boo takk ne saa yu dogee koor goo xam ne du farata